di nuyu sama yaay bu baax di ñaanal sama papa yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana di nuyu sama waa gaale sama waa famille xam nga sama papa maam Malick Ndayanta Soda Maas Elage Mboub ak booy mafia bigiru xam nga ak Elage xam nga ñoom baax moom a yokk fit démb barke sëñ Fall démb naka naka nga waajee naka nga génnee ndax demb gis naa ne bi ngay génn waa Fass Mbaw yëpp topp nañ si ginnaaw gunge la vers la victoire démb naka nga waajee combat bi. waaw démb moom dëkk bi yëpp génn nañ Fass Mbao ak li wër Fass Mbao ñëpp génn nañ te noonu la mënoon demee tamit quoi xam nga démb combat bi dañ ko soxla woon ko gars yi tamit ñaax ma yëpp ma ma ànd ak dal ak teey xam nga dem jëli li moom moom indi ko jox leen ko. sànq pare naa si loolu maa xool li nekk sama kanam. mais man mënaguma cee pare démb tuus bi nga tuus naka nga ko waajee parce que démb moom gis nañ ne yëngal nga stade bi tuus bi ñu lay tëggal. da nga da nga ko répété wala. waaw loolu lépp ñu si sant El Hadj bu baax moo si liggéey moo may tëggal El Hadj Mbuub géwalu jàmmagan si kàmbaaw yëpp xam nga El Hadj mooy loolu ndax dañ see répété rëm jàpp si tamit rëm sama doom nday moom moom ma forcé sax ne ma da ngay répété par force ndax làmb ji dañuy tuus wane suñu xam nga ñu ñëw tuus neex xam nga dañ ko sauver l'honneur mm-hmm. sëñ Bamba loolu dinaa ci ñëw ñëw ñëw ci loolu waaw ñu répété neex El Hadj Mbuub ànd ak ñëw ñoom Ousmane Sène booy ñëpp xam nga ñoom Petit waa Thiaw sa xiir ñoom ñëpp ñëw taxaw Ibrahima Mbaye Petit Tigre ñu jàpp si répété neex ñëw tuus ko xam rek neexal làmb ji dem ñibbi mooy loolu la mënoon demee Fiskar Balla gaa jàpp ñoom booy maar. mais démb lan moo woon ci làmb ji. non démb loolu laajoon man ñëw naa sa plateau. ne la làmb ji du làmb ji ñuy wax. Mhm. làmb joo xam ne dangay ngay ñëw clarification leeral la daa am si luñ jóge woon am si luñ jëmaat. te mbër dëgg dëgg dëgg dëgg bu buñ ko daanee da koy jubbanti da koy defar mhm. waaw bu ñëwaatee dafa war a indi beneen xar kanam mooy loolu làmb ji moom du du woon làmb coow quoi mais sa digganteeg moom coow ndax surtout ko xam xam ne dafa am mafia boo xamante ni ñoo topp ci ginnaaw non loolu dëgg la mais moom moom làmb ji coow la woon si moom quoi mais nekkul coow si man ndax moom combat bi si moom la rey man rëyul si man du tax loolu non c'est que mooy loolu combat bi moom la arrangé woon man arrangé wu ma arrangé wu ma Siteu bu rek man man maa koy yokk coow mais Siteu mënu maa yokk coow waaw mais ñu gis ngeen dugg ci digg géew bi abit muy dox sa kaw muy da nga ko ragaloon wala boog stratégie boo xamante ne da nga ko doon teg yàlla bind ragaluma la lu waa reculer bi combat yi ma bëre sama live yëpp demb laa gën a ànd ak xel mu dal ak conscience tranquille defe nag day dafa mbër démb laa gën a teey sama combat yëpp demb laa gën a ñëw dal parax paraxeewu ma dara da ngay def dara sa man la yaa ngi juum gaa yi nga àndal barki Serigne Bamba Siteu laa gën wax naa ko si beneen site nee naa leen combat bi mooy gën a gaaw sama combat moo si gën a yomb. waaw yomb na nag. ndax moom respecté wu ma quoi te mbër ba bëre moom da koy jox cër. Ah, dafa jàppoon ne da nga télé bëre moo tax respecté wu la. benn mbër daa ko ma fi bëre man bëreeguma sax ba léegi laajal ñoom Galas Mbaye man bëreeguma. mais lan moo lan moo waraloon mu dox sa kaw ngi dellu gannaaw. mais dama togg li may togg ñoragul. li ma doon togg moo ñoragul moo tax muy ñëw may reculer xaar li may xaar jug. lan moment moment boobu lan nga doon lan nga doon xaar ku mën a liggéey li nga bëgg liggéey sa diggante yow ak moom parce gis nañ mu lay topp ngay reculer mu lay topp ngay reculer mais bi ngeen dajantee bi ngeen dajante rek mu daanu lan nga doon xaar mu def ko ku nga mën a. waaw loolu noonu papa Mbaye Guèye ko si sant bu baax suñu papa Mbaye Guèye di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yërëm te xaare ko àjjana daf ñoo tàggat si loolu quoi suñu papa Mbaye Guèye daf ñu tàggat si loolu booy bëreeg mbër da nga koy jox cër ba pare da nga koy liir mhm. balaa mu naan bërët tànkam day dëgg baaraam yëpp balaa mu naan bërët ok mais bu nekkee bu nekkee day déplacé wu latéral tànk bi lay dëgg comprendre nga mais si dañuy bëre maa ngi moom ñuy léewtoo benn loxo bi lay joxañ ba mu sës beneen loxo bi da koy ne mu leer na ma kii laaw la mu bëgg a bu dal da la bëggoon a tuuti dóor na ma ñaari yoon ay deret mais deret yi damay bàyyi mu ñëw damay xam ni balaa moo ñëw damay esquive mais dina dal mais du saf mhm. mais loxo boobu noonu gos bi laa doon xaar mu jóg. dafa jóg bi mu téye loxo bi mu téye da koo dóor rek ma daan ko. ndax ñun dañuy dañuy bëre si ndox lu bëre ñun noonu lañ jàngee bëre xëy ñu rek njool rek ponkal rek dugg si làmb ci làmb ñun dañoo nekk ay xale yu ndaw man sama pap moom yóbbu si mbéy ne ko dénk naa la sama doom. parce que sëñ Fall ñoom ñaar ñëpp yàlla na leen yàlla yërëm te xaaral la. ñu gis bi mu la dóoree ak bi nga jug tasanteeg moom da ngeen daje mais da ngeen daje mu toog wuy sama ndey la wax ma ba ma daan ko pare mu dóor ma baal naa ko si xol bu sedd guy man du ma moroomu Siteu ma jox si champion yi ma bëre ak ñoom champion yi ñu coow si làmb champion la nag moom mhm. ndax jox naa ko cër bu moom quoi daanaan la daa mën a bëre mais maanaam catégorie làmb nag moom waruñu woon bëre eggagul mais nag Boy Jules moo leen boole non Boy Jules ba ma daanee léegi kañ la man Boy Jules ba ma ko daanee léegi jour ngeen dégg bi toog la barki yàlla Papa Gueye mii lañ doon génte ma daan Boy Jules xool boobu boobu loolu du tey si te barki démb la daan Boy Jules yàggul te bi muy daan Boy Jules magam ma la woo téléphone ndax magam ñoo bokkoon salle musculation di entraîné si te waruma woon jël sax man ndax dañ ma war signature bi ñu def télé buñ mujjee dem nee naa ko yow doo ma daan ndax da warkat nga man a ko yow nañ sax téléphone ma lay conseillé si yàgg Boy Jules ba pare nga dem jël ma yow mënoo si man dara yow nga doo ma daan wallaahi war naa woo. mais moment bi ngeen ñëwee stade ñu gis ne combat bu mag bi yàqu na yéen a war a bëri gànnaaw combat bi ban motivation nga am foofu. su ma sañoon nag wax dëgg fa yàlla làmb ji day am. Mhm. ndax signature bi dañoo dem ba ba mbaaw signature bi amul ñu ne ñu dem leen ngeen ñibbi signature bi amul. Mhm. ñu ñibbi ba egsi ma tourné dugg YouTube gis ñuy signé Maama Lamine ak Garga mooy maanaam dañoo xeeboon quoi comprendre nga. kan moo leen waxoon dem leen ngeen ñibbi. bi si boppam promoteur bi. Mhm. Kajoor production. Mhm. dem leen ngeen ñibbi la ma wax. scientifique bi amul. ma ñibbi si toog sama portable sama benn gaan ceer teranga woo ma téléphone ne ma scientifique dafa jeex ma ne ko non amul mu ne ma man maa ngi foofu ñuy signé ma dugg YouTube gis ñuy signé ma ne kon promoteur ñun dañoo xeeb. te pourtant yéen a mujjee bëre grand combat bi loolu la yàlla dogal xam nga yàgg naa toog di jox damaa war a bëre grand combat damaa war a bëre grand combat yàlla dogal lu jot yomb bëri naa grand combat par force barki yàlla te grand combat bu dàq si si année bi laa bëre te dañ maa taalal ay pétale mel ni 31 décembre <laughs> mais nga jógee ci nga jógee ci am ndam ndam gannaaw ni mu neexee nga delluwaat fa nga nekkoon fi mu toll nii lan moo nekk sa kanam fi mu moom dafa mel ni buntu yi ubbeekuwaat na waaw mais bunt yi moom musul sax. non mais nag boo amee defet faaw nga toog xaar. non mais mais xam nga mbër day am defet. Mhm. man ak yow ñoo bokk catégorie. Mhm. nga am defet dem jël booy bii nii. pour am mhm. benn victoire. man dama am defet ba pare jël mbër bu bu am caay-caay mbër bu mën a bëre. ba pare mat mbër. ndax Siteu xam nga ni du yoon làmb quoi. Siteu du yoon ci làmb. daanaan la dafa taxaw pare physiquement mystiquement mat daan ko si baat ak benn song. man booy ñoom ñëpp benn song laa am. ñëpp nee loolu mooy sa bëri benn benn benn for boobu nga muy cong. benn for boobu laa am. Ah, waaw loolu kon kon ñoom ñëpp dinaa leen jeexal si for boobu. Hmm. waaw ndax bu may ñëw duñu ma gis. ñëw booy kenn du seen may jënd laa àndal. daa woo suñu maam. bàq suñu maam xaarim du sekk ñëw jël micro bi jiiñ Sëriñ baam mais fi mu toll nii gannaaw daan nga. ñan ñoo nekk sa kanam ñan ñoo adversaire yi. adversaire yi instant bii nii nii. yow toogal nga Zarko non Zarko moom du la jël xam nga nag xam nga nag lii moo tax lii moo tax li ñuy wax wax da ngeen di am benn ndam ak fuuy non man damaa tegle man damaa bëri six combats benn défaite laa si am six combats yoo xam dama ko tegle mais taxul tamit nga laaj Zarko waxam ma wax ma adversaire yi waaw nañ ma jox ambulance bu Thiès Zarko làmb boole nañu non làmb boole bàyyi ma ñoon bàyyi ma ñoon waaw mais après moo daan mbay guy gi non mbay guy gi man mbay guy gi man xoolu moo ko sax waaw bu la neexee mbay guy gi bàyyi moo ko xel champion la nag mais xasuma ko mais bu suñu bëree sax bokkul kooku bu nekkoon école lañ bokk. Mhm. moom jardin lay jàng man may def sem deux si bëre quoi barke Serigne Bamba mbay guy man nawloo ma ko sax si mbëri man dof laa ko jàppee am na combat digganteem ak armée moom laa bëgg wax <laughs> lii di fii ak laaw. <laughs> parce que ambulance bu Thiès moom maa ngi moom laam na nañu. ambulance bu Thiès waaw. ndax man sama combat yi ba métti. Ouzin. Mhm. combat jànk kese laa bëre musuma bëre ak mbër boo xamante ne nii. dañ naan kii moom mooy Mamour Sans man ay jànk rek laa bëreel. Mhm. ay booy yu bëgg fël ay booy yu soxor ay booy yu ës ñoom rek laa bëreel ay pôl bu daaro maa ko daan grand combat lay bëre mooy loolu xam ambulance bu Thiès na ñëw ñu ñaan ñaanuma kenn sens nag damaa teg la samay victoire kase wala Modja ñoom ñaar kase laa cité bu loolu amul nag naes samay toog sama diwiteri liggéey jaay sama yàpp man géwal laa mooy loolu toog fee ne géré ko démb lamb la si gën a lamb ji si gën a neex mooy gis mbay seen a xaan du sec loolu yokk jom barke loolu neex na ma li nga taal gaz toog ci yokk bu mu sës kenn sax dina daan ñeneen ñu ëpp ñii waaw xool ko waaw lan nga gis ci moom lan laa gis ci moom xam naa sama ragal ji day am ndam du ragal booy bi te ñi muy daan ñoo gën a metti ñi mu daan naa ah, daanagum parce que Serigne Saloum mais dañoo gis sa diggante yow ak moom. da ngeen ah. am benn complicité. comme moo nekk seen diggante yéen ñaar da sama diggante ak moom mu ngi mel ni sama papa ak Mbaye Gueye Tigre. oh. waaw. ay doomu gaynde lañ tamit yaa ma gën a xam. maam daan toppee doomi garmi ngi ci yow. jiitu nga leen sànni karawaas ya daan leen jël buñ dootul miin bàkk woo dam woo yaa gore. kuy doonu maasamba jeey guy galis na atulis na atulis na ngay dembaag wali mata njaay muy tamis na waaw waaw waaw sëñ non kii dafa coupé sa appel. waaw mais kii yàlla. xaaral ne sa waay sa waay sa waay daa yàq daa coupé daa coupé appel Ah. mais rëm boo dégg maan rëm sax kii daf ma sonal trop. rëm daa war a am combat nag yi nga war a jël nag. non kii ay 4 millions lay laaj. xam nga ne kenn du ba cat. ba pare ambiance. lu mu méttee sarax yi. loolu du yoon moo laaj 4 millions. non mais tamit c'est normal ñu fay ko ko. Hmm. wallaahi soo amoon kàddu yu mujj. lan ngay wax. sant gërëm ñi jàpp ci combat bi. ndax gis nañ préparation moom ku ne xam na ne dafa métti. waaw bu may lu may am kaaj bu mujj maa ngi sant àdduna bi yëpp waa Fass Mbao aw ma seen fay góor ak jigéen mag ndaw surtout ma sama waa koñ waa bikitum naar bi mafia bi ñoom Bada ak Aada Kawas boo yëpp maa ngi sant bu baax suñu waa kër sama waa famille ku lim da ngay juum su ma limee sama famille rek juum ndax ma limee dina am ñu ma ma matalu mais mention spéciale Ndeye Anta laay gërëm ak ak aji ñoom ñaar laay gërëm ak sama papa Malick El Hadj Mboub sama tëggkat Xaadim du Seck Galas Mbaye di gërëm waa Thiaw sa xiir dañ maa waa Thiel sa xiir amul seen fay. mooy borom sareet borom sareet yi. dañoo def lu daw sama yaram ñoom petit. barke sëñ Bamba borom moto yi amuma seen fay. landing ak ñoom Cheikh Omar ak ñi si ginnaaw ñëpp ku lim da ngay juum. di gërëm bu baax waa Sofa sama papa. Père Baye Fall. Mañang ma jàppale papa yi Assane Fall borom Autriche. di la wax peer jàppale ma man sa doom maa ngi nii maa sa ginnaaw ku amul yu wér waaye da nga yomb bu max di nuyu ba madame Margo baax di ko ñaanal jàmm di ñaanal yaayam jàmm ak tan ak Baye Doudou jëkkëram baax a baax moo sëy maa ngi koy nuyu borom Brescia madame Margo loolu dara ah. waaw mais mais <laughs> naa la fa yóbbu sax soo bëggee moo sëy borom Brescia maa ngi koy nuyu jàpp na si combat bi ak Maodo ba borom France man sama yére yi juge itali tey la war a ñëw sama so man saa yi ma pare dañ may defar saak nga beesaat ma beesaat tàq commencé bu ndeelu ànd ak rëm yaa ma gën a xam Aliou Thiam borom asalem jàpp na si combat bi Bouba Fit Pape Gueye. mention spéciale waaw moom moom moom la jeudi de. Kara Dollé day ngente jeudi maa ngi koy yëgal àdduna bi yëpp ak diaspora bi. <laughs> mooy loolu. di nuyu Khalifa Wade di ko gërëm ci combat bi jàpp na ci Khalifa Wade bu baax a baax. Maodo Ba France sama doomu nday sama xarit jàpp na ci combat bi. Abo 55 jàpp na ci xam nga. Kems borom France. Mhm. Kems maa ngi koy nuyu bu baax dafa supporté. mafia dix-huitième bi yëpp France Ama Baldé bu demee France fa lay nekk ñooñu jàpp nañ si combat bu baax a baax ak yaayam ak Escobar di nuyu nogay sama dëkkandoo bi nga xam ne deux mois laa ko yoral location wallahi xaw ma trois mois. du nogay maa ngi koy sant baax di ko gërëm bu koole nekkul si kër gi moom mi tibal añ ak di ma may kafek lépp jëkkëram bay penda maa ngi dëkk si kër gi boobu ba léegi benn problème amul xam ma li nañ ma sono sonaluñ ma ndax suñu kër gi daa xat wax nag ki ñu tuddee drapeau bi muy ITV ITV. ITV Boubacar Diallo dama laa bëgg a gis barki Serigne Bamba gaan boo paree nga jëloon suñu miiru kër gi barki Serigne Bamba birig yi gis nga si lañ ko war a fii lañ war a toj dañ ko war a miirewaat damaa bëgg ciment ak fer. ndax miir bi nii bu nawet bi ñëwee mën na daanu suñ kaw. xam nga ma jël drapeau Boubacar jalo tamit am naa droit xam ñaan ko ciment ak fer quoi pour tabaxal sama yaay këram xam nga ñun amuñu lu dul suñu barki Serigne Bamba. waaw ak xam nga suñ papa Père Modou Fall Ndiaye borom Brescia tamit xam nga ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm ak Asumben xam nga di nuyu Khalifa Wade Omar Ndour mention spéciale ak grand Zal Ndir xam nga jàpp nañ si combat bu baax a baax Omar Ndour amuñu sa fay Pape Gueye le soir de la jeunesse Sidi Mbaye Maguette Jëkkër Koole mooy loolu jàpp na si combat bi Vémas amuñu sa ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm. ñànku kase kase et frère barke Serigne Bamba daf may jàppale moom suma daanee ak suma ma daanoo daf may jàppale ñànku barke Serigne Bamba maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom bu neexee bu méttee yeeg dalay jàppale billaahi Baba Ndiaye la jeune transitaire xam nga amuñu fayam barke Serigne Bamba njuufa tamit ñoo ngi koy sant bu baax di gërëm billaahi génnal ma lii may bëgg a wax nii. lépp day jàll bu si rek. xóoru saw mu ne maaw faas mbaaw ñun amuñu safay Mm. non ba ñuy jàppale du tey barki sëñ Bamba lu nekk defal nga ñu ko yaa ma njëkk may laadum Xodou saw amuñu sa fay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm doom nday mos kii moom Souley di nuyu Amane Ndaw suñu grand la xam nga ñu ngi koy jégalu bu baax xam nga waaw yenn saa ay réeroo du ñàkk si koñ Amane Ndaw ko mm. mu ñëw jàppale ñu quoi accompagner école leen béygéey bi xam nga ñëpp maa leen woo di leen jégalu xam nga di leen baal àq di leen baalu àq dem sonal naa ñëpp gars yi ba ba minuit une heure du matin wallahi sept heures du matin laa tëdd huit heures galas mbaa yeema mm. te dama yeew toog ñoom fii mais Ama Ndaw dañoo bëgg école bi nga ñëw boot ñu yaay suñu grand nga ñëw diriger ñu jàppale ñu yow ak jam usine doole xam nga père Mba yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen ñëw jàppale ñu si école bi mbay karaate kaa Fass Mba ay champion dañ fi war a génn quoi ay ndaanaan ñoo ngi si ginnaaw yoo xam ne ñoo dàq bëre Mamor ñoo ko ëpp doole barke Serigne Bamba mooy lool Mbay la de booy Sadio maa ngi ñaan combat bu mu jëm yàlla ko yàlla may ndam waaw sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ku ma limul rek xam sama xel moo fat waaw maa ngi jégalu ñëpp nag di wax xama ndam li mayaat naa waa Fass Mbao yëpp nañ pare tànn beer bi xam nga élage boobu télémaam jaar ñu yoole ko fu mu yoolew waaw jàmm ak xewal ak sutur Assane Fall borom autrice ak Aba borom autrice kontaan naa si bu baax a baax a baax a baax. waaw. waaw di nuyu xewlu Serigne Touba Ibrahima sama doomu nday sama xarit jàpp na si combat bi baax a baax a baax waa raay ba yëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm ak waa Mbedd faas di nuyu sama maire maire Sakho waaw borom saalum maire Sakho maa ngi koy sant bu baax jàpp na si combat bi. ak Serigne Bamba ak Samba Ndour borom tuubaa yéreem la simi jox ma ko moom laa sol si laamu ji yére bu ma sol si laamu ji Samba Ndour moo ma ko jox yéreem bu muy sol. la ma simi jox ma ko jox ma ay kawas ne sol ko jour làmb ji waaw bu nekkee lekk kuy fas wala kuy yeew. Mhm. noo doo du kenn du jàpp si gàllaaj parce que Serigne Bamba di nuyu waa Touba yëpp Baye maa ngi koy sant baax di ko gërëm. ak Thierry Teraanga sama doom nday sama xarit. Ada Kawas Petit Diané Landing Sewmar maa leen sant bu baax a baax a baax a baax parce que Serigne ay ñoom Diawara Ousseynou ak Assane mention spéciale Jelaani kontaan naa bu baax a baax si ñëpp di nuyu Oustaz baax. nuy Boy Seye 2 ak Sa Bokkal di leen sant bu baax di leen gërëm dañoo jàpp si combat bi contact yi bu fit sama doomu nday mooy loolu kontaan si ñëpp daal. jaajëf Ahmed boroom France borom Italie lamin Mbaye ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm Zo Lion combat bi jàpp na si bu baax a baax mais luñ gën a bëgg mooy Ama Ndaw nga ñëw taxaw si école bi sigil gars yi jëmmal ñu waaw yite boobu daal xam nañ am nañ ko barke sëñ Bamba. yaa ma gën a xam. Alas Mbuub doomu nday Maamoor aw bilaay korko yaa mbay mbay naaru misaan naaru xaadimo sumlaaye mamoru ya nday may naar mum bisaab ay kolkoya mamore eh, merifiya naaru Xaadimu Simlaay Maam Moor woo naa doy ñam beefla Maam Moor naaru yaa mbay mbay danga naan naaru mbisaan ana sama rakk jeewoo naa la waaw waaw naara doy ñam waaw ah. mbay mbay naaru mbusa waaw maam moo li nga yàpp ci bay reere ko fi njaan fanaan ko ci muyeen te du ko ci lal bu nooy boo daanoo mu tas kanaan du ko fay def na ko nee naa maam moo jaral nanga tàccu man mi de jaral naa ma naaru Xaasim Laaye yaa teel a ñàkk baay waaye borom jom nga waaw ana maam woo naa la waaw waaw woo naa la doo ñaaw mere fiya naarus xadimoo sim laaye gorka yaa mbay mbay naaru misa naaru xadimoo sim laaye maam Moor waaw waaw ndaa ma yegul njool njooli yegul ndaama léegi saa wi cax ni ku ku sàccoon bëgg a raw mbaa nga def bagaar bëgg a dem espéré di la daa xoro ba tiim la maam moo rangee naa la doo ñoom mbiri fi ana maam moo naa la korko yaa mbay mbay mbay naaru mbisaan naaru xaadimo simlaaye maamoor nuuna la doo ñaaw mbere fiya naaru xaadimo simlaaye ah? korko yaa mbay mbay naaru mbisa naaru xaadimo simlaaye maamoor dama naan culaay waaw waaw culaay culaay culaay eh. Mamor Korko yaa may may gaynde gi kay nga ma naaru Xaadimu simlaay eh, Mamor woo oh, naa la de ñaaw mere fiya naaru Xaadimu simlaay Gorko eh. yaa mbay mbay naaru mbisa naaru Xaadimu simlaay Mamor Mamor doomi limaan yaaram bu la deetal ñaar loxo ngeen maqaamam baay ba waaye maqaamam am ba jiite mbooloo moo ko saagul boppam gay ne gaa ngi naa la jugul sagal ma jubal kor ko yaa mbay mbay maamoon mbëri fi naaru xaadimo sim laaye maamoor wo naa la doña mbëri fi naaru xaadimo sim laaye waaw yul ki woo war na la wuyul ki lay woo mamoo jiga mu ngel waar jugal ñu sagal ñu jiga mu ngel waar wuyul ki woo waaw woo war na la woo wuyul ki woo nee naa buru siin buru ñilaan buru barsiin sama mayaane feeling feeling paaj feeling feeling paaj feeling feeling paaj jaar mu ba jaar caam. ndeysaan. Ah. waaw li nga wax jër mu may la boo ko waxee sa rakk da lay may kay. waaw waaw bàyyi si yow noppi rek. di kontaan ci yow bu baax a baax di jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba ci Wassare Lamb. jaa ngeen waaw.